ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
إخوة الإيمان موضوع غريب وقل من يطرحه في دروس الدين إنه موضوع مرض إخوة الإيمان المرض من سنة الله في خلقه وبعض الأحيان يكون عادات فعالة للتربية فالمرض قد يكون عقوبة على ذنب وقع من العبد كما قال المولى جل وعلا في محكم التنزيل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi xutba tey mooy almaradu ibtilaaun lil mujtama mooy feebar léeg-léeg yàlla def ko mu nekk nattu ci ab société te xam ngeen ne moo waxtu yi nu nekk ci biir réew mi ak biti réew ñépp benn feebar moo leen tiitloo mooy Ebola li dafay dëggal sunu diine dafay dëggal wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne saa yu ngeen jàddee bañ a tegu ci yoonu yàlla yàlla am na yar yu muy teg seen kaw bokk na ci yar yooyu ay feebar yu seeni maam xamul woon ñi ñaa ngi doon jooy sida tey ñëpp fàtte nañ ko lan mooy wax ji mooy Ebola tere la nit ñi nelaw tere leen lekk tere leen naan ñëpp tiit ba fit yi di rëcc waaye day wane ne yàlla mooy buur bi mooy borom kàttan allahu akbar su nit ñi réeree rek am lu yàlla teg seen kaw pour ñu xam mu nekk mawdu bu yéeme léeg-léeg sax téere diine yi borom xam-xam yi wax ci lislaam néew na nga gis ku jël xalimaam bind ci feebar néew na mën ngaa jàng juróom-ñaar fukki junni téere waaye feebar du ci bokk doo ko jàng mu moo tax mu ne mawduun garib wa qalla man yatruhu fi durusi diin tomb la bu yéeme boo xam ne même borom xam-xam lislaam yi dafa néew luñ ciy wax te pourtant ci la bokk ndax yonent bi wax na ci yàlla wax na ci almaradu min sunanillahi fi xalqi feebar tëralinu yàlla la doxalinu yàlla la tabaraka wa taala bu muy teg ci kaw jaam ñi pour lan yenn saa yi mu nekk benn jumtukaay pour yàlla yar nit yàlla feebar loo ko parce que dafa xamati parce que dafa réew parce que dafa yëg boppam parce que day fëkk dënnam parce que day bàkku yàlla jël feebar teg ci kawam pour mu yaru fi mu nekk nii képp doole ci àddina bi ki fi gën a réew ëpp fi alal gën fee saay-saay su yàlla yëngaloon bëñ bi rek dalay fekk mu ne selaw tëdd dara bu yëngatu soo koy ñun sax dootul fay ci kaw sooy wax ak moom dootul wax ci kaw dootul tont moo tax feebar benn yar la bu yàlla teg ci kaw jaam ñi pour yar leen adatun li tarbiya yàlla koy teg ci kaw jaam ñi di ko teg ci kaw société pour lenn lu leen yàlla sant ñu lànk yàlla teg ko seen kaw pour ñu delluwaat loolu tax moom borom bi tabaraka wa taala mu ne fal inna al marad baadu al ahyaan yakunu uquba ala zambin waqaa min al abd yaqulu taala wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum feebar lenn saa yi yàlla da koy teg ci jaam ñi lu tax parce que jaam ñi dañoo bëri ay bakkaar yàlla teg leen ay feebar loolu borom bi tabaraka wa taala moo ko wax ci quran ne wa ma asabakum min musiba bépp musiba bu dal seen kaw bu leen dem fenn bu leen woo kenn bu leen ne diw moo ñu ko teg bu leen ne ma sàmba la yéen yéen a ko def fa bi ma kasabat ay diikum yéen a ko def tey lu kenn mën taweeju mooy nit ñi dañoo lànkal yàlla waaw ci biir activité ñu weex ñoom ñi ñuul ñi ku nekk lu la neex ngay def léeg-léeg sax nga gis ku nekk ci diina di foye diina ci lu nu neex lu def lànkal borom bi tabaraka wa taala feebar yi ñuy coow lan moo koy waral feebar bi mu nekk di ko tiit ak di ko daw lan moo koy nit ci dëkk bi lu ñu wax lekk lu ne islaam araamal ne kenn du ko lekk wala salte te xam ngeen ne islaam inna haza diin buniya ala nazafa diina jii ci set la ko yàlla fonde benn nasaraan dafa dégg ñuy wax akaamu tahara fi fil islaam ak tey laab ci lislaam rek mu ne yéene woon naa ma nekk jullit ndax diina ji ni muy waxee laab amul fenn ci àdduna ku koy wax même julli ji jumaa dañ laa wax ne amoo droit julli ji jumaa lu dul nga sangu set kenn ci ñun majeur góor la wala jigéen amoo droit génn sa kër soo yére ñëw jumaa lu dul dangaa sangu ba pare yonent bi sax bal dafa ne sangu jumaa farata la ci képp ku majeur képp ku génn sangu set farata la ci yow pour nga ñëw jumaa bal diina ji romb na foofu dañ laa wax ne boo yeewoo fajar balaa ngay laal potu ndaal wala ngay laal robinet raxasal sa loxo trois fois ndax xamoo sa loxo yi fan la fanaan noonu la ñu diine ji wax boo yeewoo fajar balaa ngay laal dara moo xam satala la moo xam pot la moo xam robinet la moo xam brosse la day ne sa loxo yi raxas ko ñetti yoon ba pare ndax xamoo sa loxo yi fu mu fanaan lan la laa wax boo génnee toilette jamono bi saabu amul bëri yeneen bi daf la wax ne boo génnee ci douche jëlal sa loxo yi bomb ko ci suuf si sotti ci ndox bomb ko ci suuf ba mu set nga doog a jàpp kon kay diine ci woo nit ñi ci set dëppi borom bi woo ñu ci laa inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin lépp ñu sant la ko bu fekkoon ne nit ñi topp nañ diine ji ci laa boobu mu leen woo kon yu ndaw ndawaan yi ñuy jàmbat du fi am waaye bal même ci li ñuy lekk l'islam am yu mu la daganal ne la yi ngay lekk mu ne la yee araam na ñi nit ñi di def lu leen neex ñi di lekk ay golo ñi di lekk ay kaña ñi di lekki jaan ñii di lekki mbët ñii di lekki sindax kon yay na feebar tàbbi seen kaw parce que dañoo lànk ba ñu déggal yàlla du hasard yàlla di ñu tere yenn yi bu ñu ko lekk du hasard yàlla bu leen ne bu ñu ne bu leen lekk sàngam ñun buñ ko lekkee wala ñu bañ ko lekk lan lay wàññi yàlla du ko wàññi dus waaye ñun la suñu bopp yàlla xam na ne li baaxul ñoom war a mën a bu leen ko lekk xoolal mbaam xuuf ni mu mel mbaam xuuf gis ko rek sa xel day tey boo ko gisee moom rek sa xel day tey nga gis ko rek laa wax moom waxuma la nga gis ko muy lekk waxuma la nga gis moom ni mu mel waaw yàlla mu ne bu leen ko lekk doomu aadama ne day lekk moo tey lu ko ci dal moom la kon yàlla wàccee naa ñun ba ñun ñoo fi def waaye nag moo tax yàlla bu ñu teree ñu lànk yàlla jël feebar teg suñu kaw pour ñu delluwaat moo tax mu ne wa ma asaabakum min musiba lépp lu leen mën a dal ci ay musiba jógewul fenn du yàlla de bu kenn tooñ yàlla fa bi ma kasabat aydiikum yéen yéen a ko fàggu léegi nag réew mi moom mooy ku def lu bon rek ñu ne yàlla moo ko dogal waaw lii de yàllaa ko dogal yàlla du dogal lu bon yàlla amul lu bon yàlla du fay nit ñi lu bon yàlla lu baax la am mu fay la fukk man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayyiati mu ne fala yujza illa mislaha soo defee benn lu bon yàlla du la fay de daf lay bàyyeeg lu bon loolu parce que ba amul lu bon lu mu la yokkal moo tax da lay bàyyeeg lu bon yi nga am benn lu bon waaye boo defee lu baax moo daal lay defal fukk kon yàlla amul lu bon nit ñi ñoo yor lu bon nit ñi nag buñ defee lu bon lu bon loolu këpp seen kaw bu ko kenn delloo yàlla yàlla du sabab lu bon yàlla daf ñoo tere ñu lekk yenn lekk yi ñu lekk ko feebar këpp suñu kaw yàlla waxoon na ñu laab ñu lànk feebar këpp suñu kaw kon nanu régler suñu problème mu bopp ixwatal iman borom bi mu ne wa yaafu an kasir man yàlla li ma leen di baal sax moo ëpp su ma leen doon topp ci li ngeen di def may foyante ak yéen ku def ma fay ko ku def ma fay ko waaw kon du baax kon kenn ci yéen du yeewu waaye wa yaafu an kasir li ma leen di baal dafa bëri doomu aadama yi dinañ def ay milliards yi bàkkaar benn la leen yàlla di topp parce que bu leen toppee du baax ixwatal iman fal maradu ibtilaaun lil mujtama kullihi idan wa yanbagi ala al mujtama an yubaadira li tahammuli masuliyatuhu amam allah yàlla bu ñu dee natt ci kaw société moo xam feebar la moo xam catastrophe la lu mu mën a doon moo xam ay taw la yu wala ngaan ci kaw nit ñi moo xam suuf si moo wal ba teeku kër yi daanu société ba moo war a jël responsabilité delloowaat nit ñi ci règle dundin bu baax organiser waat nit ñi yaraat leen mais pas ñu bàyyi nit ñi ku nekk di def lu la neex loolu moo fi nekk partout ngay gis ñi ngi jaay ay café ci mbedd yi xamoo luñ ko defaree ñi ngi jaay ay yu kenn xamul partout ku nekk a ngi yor sa yëf di jaay ñi ay forocaaya lañ ñi fa ñuy jaay fa ñu teg lekk yi setul gaa yaa ngi lekk weñ yaa ngi ubale ndox yi te nit ñi dañuy lekk di naana da ngay gis nit ñi dox ba xiif rek toog di lekk danga dafa ne noonu la ñuy organiser dund dund nit ki lu war a dugal ci biiram dafa war a xam lii lan la fan laa ko jële loola tax yenn saa yi da ngay jékki-jékki dina jàpp nañ benn waay boo xam ne jaay na mbaam 40 ans nit ñi di lekk yàpp yi jàpp nañ benn waay boo xam ne ay muus la doon jaay nit ñi di ko lekk waa ji jaay na fukki at yàpp muus chaque jour ngeen dégg ko waa ji jaay na yàpp xaj fukki at waaw waa kon boobu di lekk rek ku nekk naan waa ji moo neex yàpp ndeke yàpp xaj ngay lekk lu ko waral mooy ñàkk organiser dund gi ku nekk def loo neex yenn saa yi ay nit yoo xam ne dañuy dem ba daral fekk fa xar yu dee ñu diri ko fees ko ñëw jaay ko nit ñi ñu lekk lu nekk ngay gis Sénégal parce que baaxaluñ suñu dund jéemu ñoo teg ci yoon bu baax ixwatal iman fal ibtila alwaan fal ibtila alwaan nattu ay façon la ibtilaun li sabr ibtilaaun li shukr ibtilaaun lil ajr ibtilaaun li tawjih ibtilaaun li taadib ibtilaaun li tamxiis ibtidaun li taqwim natt ay façon la yëpp yàllaa ko moom bu ko ci neex mu def kenn mënu ci dara léeg-léeg yàlla fekk benn waay boo xam ne yàlla daf koy natt pour lan pour mu muñ waa ji dafa mën ta muñ day jàmbat fu mu toll day kapetu yàlla mu ne dinaa ko teg dara pour mu muñ moo tax mu ne lépp lu la dal fal waajib alal marid ki muñ ki feebar na yëg ne feebar bi dafa am lu tax yàlla teg ko ko lu tax yàlla teg ko ko mooy an yasbira ala hazal bala dafa war a muñ feebar bii fa inna zalika ubudiya loolu muy muñ te du jàmbat moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam bu nit feebaroon mu seeti ko da koy wax laa ba'sa tahur insha allah du dara yàlla lay faj rek yàlla moo lay laabal dangaa bëri ay bakkaar yàlla moo lay setal laa ba'sa tahur insha allah loolu la yonent bi wax yàlla moo lay laabal benn yàlla laabal la ci bakkaar yi noonu ñaar yàlla laabal la ci feebar bi nga tane ñaari rek moo fi nekk kon ki yàlla teg feebar ne yëg ne yàlla daf ko teg nattu am na koo xam ne yàlla daf ko teg nattu bi pour lan pour mu muñ muñ nag ci ñetti wàll yëpp habsu nafs alal jazi wa tasaxuti tee bakkan bi ba du ñaxtu du kepetu du du saalit du yaafus mu muñ xam ne yàlla moo ko teg mu muñ comme ni ayuba defoon moo tax bu ñuy wax ayub lan la ñuy wax ayub as-sabir ayub muñkat bi yàlla teg la ko pour nga muñ am na koo xam ne yàlla daf koy teg natt li sukri pour mu sant yàlla musul sant yàlla xamul tax ñuy sante yàlla yàlla xëy rek door ko dara benn feebar nga gis ku ko yow seet rek waa sëñ bi yaa ngi tane mu ne alhamdulillah yaa ngi tane yokku leen ñaani yokku leen ah gis nga pour mu sant yàlla parce que moom dafa jàppoon ne moom moom la lu mu def moom la lu yëngu moo ko yëngal lu mu def moom la moo yor ay mbiri boppam yàlla mu ne ko nag di nga xam ne du yow man la loo mën man la yàlla teg ko feebar feebar bi métti ba mun ta wax bi mu commencé wax ku ko seeti ne ko noo def mu ne alhamdulillah yokk leen ñaan yi yoon ñaan yaa ngi ñëw yàlla ngi koy nangu maa ngi sant yàlla gis nga am na koo xam ne yàlla daf koy teg feebar li ajri pour fay ko li mu liggéey réy na trop pour yàlla fay ko yàlla daf koy teg nattu xanaa da ngeen a fàtte qissatu saharatu firawnu ñooñu dañoo xëy di bokkaale ak yàlla julli wuñu wooruñu jorawuñu azaka ajuñu màkk dañoo xëy nekk ay yéefar yu ñuul kukk waaye balaa ngoon yàlla fay na leen ñu dugg aljanna dañoo firaaw na ci suba di bokkaale firaaw na neen dafa am benn waaye bu nekk ci dëkk bi ne yonent la moom rakkam fekk njabarkat la léegi nag yéen yéenee njabarkatu dëkk bi dama bëgg ngeen dajeeg moom bu ngeen ko dajeeg moom ngeen daaneel ko ci suuf ñu ne ko amul problème a inna lana a inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibun ndax ñun ñooy gañee ndax ñun bu ñu gañee loolu ñuy fay mu ne leen innakum min almuqarrabin kon ma def leen ay ministre danaa leen def ay ministre ngeen nekk sama wet jege ma ñu daal di daje yow mu ziina peuple bi nekk ñett tribune bu mag bi Firawna toog beneen fi tribune bi peuple bi toj ak ñeneen ñi Moussa kese ak rakkam ñu ne Moussa sànni Moussa ne leen sànni leen yéen ba pare ñu sànni fa saaru ayunan naas ñu jabar bëtu nit ñi moo tax njabarkat yëpp ay musiba lañ moo tax yàlla ne njabarkat du texe nit ñi dañ yaakaar ne njabarkat mën na dara fekk njabarkat mënul dara bëtu nit ñi lay njabar bët yi ñooy soppeeku yàlla moo ko wax fa saaru ayuna naas bootu nit ñi lañ jabar mais la ñuy indi dara changé wu ci nit ñi ñooy xool seen bët yi feebar dugg ci la ñuy gis mel ne ay jaane ki ñàngoor fekk ay buum la changé wu yàlla ne Moussa sànni li nekk sa loxo ndey joor Moussa sax ba mu gisee njabar yi sànni seen buum yooyu Moussa dafa tiit dafa tiit fa awjasa fi nafsihi xiifa yàlla ne na Moussa ci intérieur man yàlla maa xam lépp waaye yit naa ne Moussa mi tiit na man yàlla ma dëgëral ko nekk bul tiit bul ragal sànni li nekk sa loxo ndey joor mu sànni yatam wi yat wi daa di mag daa di mag naan wan lépp lu njabarkat yi indiwul bi loolu amee lan la njabarkat yi def ñu daal di këpp ci kanamu Moussa daal di sujjóot daal ne amanna bi rabbi Moussa wa Haarun ñëpp ñu daal di gëm ah Firawna mu ne waaw yéen da ngeen di gëm kii te wax na leen ko joxu na leen ndigal gars yi ne ko ngëm yàlla amul ndigal ndeysaan mbokk yi ngëm yàlla kenn du ci laaj ndigal léeg-léeg nga gis kenn ci dëkk yi mu ne waaw man wax dëgg yàlla dama doon julli dama doon xabdu waaye sama papa ne bu ma xabdu léegi nag lu ci islam wax da ngaa ragal rek ay julli ay woor ay jaamu yàlla kenn xaaj ndigal kenn moom ko kenn moo ko moom yàlla war nga gis jigéen ñi ne man damaa bëggoon muur waaye sama jëkkër nanguwul sa jëkkër mooy yàlla sa jëkkër dafa moom muuraay ndigal kenn kenn du ci laaj jaamu yàlla kenn du ci laaj kenn ndigal kenn du ci laaj baay kenn du ci laaj maam kenn du ci laaj sàmb yonent bi sax jaamu yàlla kenn du ko laaj su yàlla joxe ndigal jëfe rek yal na yàlla yërëm imam ahmad nee na ida qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wal raas su yàlla ak yonent waxee kenn dootul wax kenn imam malik ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza al qabr waxu ku nekk dañ ci sikki sàkk ba mu des waxu borom bàmmeel bi lu mu wax noonu la mbokk yi firawna ne leen yéen di ngeen di gëm kii te waxuma leen gars yi ne ko ñun dañoo gis dëgg de daal di topp dëgg gi ndax Moussa bi mu ñëwee doon wax ak firawna da ko ne wa salaamun ala man ittaba al huda yàlla na jàmm nekk ci ku gis dëgg topp dëgg ñun gis nañ dëgg mu ne kon dinaa leen rey danaa leen daggati dinaa leen yeew ci poto tàndarma yi wala usallibannakum fii gise in nax la naa leen yeew ba ngeen dugg ci tàndarma yi gars yi ne ko faqdi ma anta taqdi innama taqdi hadihi alxayatu dunia dafa lu la ne adduna rek nga mën alaxira ñoo ak yow ñoo fa yem mënoo fa tus adduna rek nga mën te adduna sax xam nga loo mën mooy dagg suñu yaram waaye suñu iman mënoo ci dara ndax boo ñu commencé rey ñun dem nañ ba ca yàlla dugg nañ aljanna firaaw na daal leen di rey ñu dugg aljanna ñooñu yàlla fay na leen mbokk yi ñooñu wooruñu julliwuñu joxewuñu azaka demuñu màkk dañoo koy nekk ay yéeféer waaye tàkkusaan mu ngi leen fekk bil arjanna yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori alhamdulillahi waxda wala na'budu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ixwata aliman falibtila baadu ahyan yakunu liltawjih yenn saa yi yàlla nattu nit waaye yàlla da ko bëgg a orienté fi mu jaar baaxul yàlla nattu na ko nattu bi yenn saa yi mu bañ a nekk feebar kese man ngaa jaar ci yoon fekk yoon bi nga jëm yàlla xam na baaxul mu nattu la mën ngay tukki yàlla réeral la fekk am nga destination boo jëm yàlla réeral xoolal Moussa génn na Madyan ànd ak soxnaam ak ay xaram jëm Misra mu dem ba ci diggaale bi mu réer ci waxtu lëndëm guddi mu ngi xiin asamaan saa ngi ñuul mi ngi sedd guy Moussa réer na nekk ci àll bi di wër xamul fu mu jëm xamatul yoonu Égypte tàggu na Madyan Shuaybu ànd ak jabaram ak xar yi mu ko mayoon ak jur yi Moussa ngi dem ba ci digg àll bi Moussa réer na nekk ci xaaju guddi ci àll bi réer xamul fu mu jëm waaye xoolal nu ko borom bi tabaraka wa taala orienté comme dafa sedd comme dafa lëndëm lan lay soxla mooy safara yàlla feeñu ko ci montagne tiiru Sina ci safara Moussa bi mu séenee safara si ci lëndëm googu ci àll boobu ci sedd bi mu ne jabar ji ak ñi mu àndaloon imkusu fa inni raaytu naaran toog leen fii gis naa safara amaana bu ma demee ci safara si danaa fa fekk ki boole safara si mu won ma yoon wi wala su fekkee xamul yoon wi mu may ma ci benn gëlét ma ñëw taalal leen fii ngeen jaaru ba fajar ñu gis yoon wi daal di dem Moussa bi mu ñëwee ba ci wetu safara si lan la fa fekk fa isa bi Moussa nuudiya yaa Moussa inni ana allah la ilaha illa ana Moussa jege rek yàlla woo ko ne ko Moussa maay yàlla maay wax ak yow faxla na alayka simi say dàll innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa maa ngi lay yëgal ne yaa ngi ci montagne bu am bu sell bu am sécurité ndax malaaka yi ñu ngi ko wër yàlla fa la ko defee les formation doog koo yónni ci firawna kon léeg-léeg yàlla dina nattu ay nit waaye pour orienter leen la waaye léeg-léeg ayuha al ahbab baadu ahyaan yakunu al ibtila li taadib léeg-léeg yàlla nattu nit pour lan pour indil ko ay teggin pour yar ko pour jugal ko parce que kii dafa xamadi parce que kii dafa saay-saay am na doole xoola firaaw am doole am doole ba doole ji paase nit ñi mu ne inni ana rabbukumul aala maa yàlla ñu mag gi maa alimtu lakum min ilahin gayri maa yàlla waaw yàlla nag moo tax doomu aadama léeg-léeg yàlla teg la nattu waaye natt bi pour lan la pour yàlla da lay yar parce que da ngaa ëppal fa nga waroon a yem da ngaa ëppal léeg-léeg yàlla teg nit nattu li tamxiis pour segg ñépp ñoo ne ñun ay jullit lañ ñoo ngi ci biir jumaa ji ñoo ngi ci jàkka yi ñoo ngi jàng alquran ñoo ngi julli ñoo ngi woor waaye yàlla natt indi natt al islam miim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun yàlla leen da ngeen di wax ne ay jullit ngeen rek ngeen yaakaar ne ma bàyyi leen foog ma natt leen ma xool ñan ci yéen ñoo gëm li ñuy wax gis ngeen keroog Badr yàlla sahabatul kiram la joxoñ ay baaraam ñoo xam ne ñooy xayru naas yenent bi nee na xayrul quruni qarni siècle yi gën ci siècle yi mooy sama siècle wa xayru naas qarni yonent moo wax loolu waaye keroog yàllaa leen joxoñ ne yonent bi wa minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu l axira am na ci yéen ñoo xam ne ñu ngi ci wetu yonent bi àdduna rek lañ gëm gëmuñu yàlla àdduna leen fi tax a toog te yooyu ay sahaaba lañ kon yàlla day natt li tamxiis pour segg nit ñi ñan ñoo dëggu ci li ñuy wax ana ñan ñooy woote wuy lislaam ndax tey ñii nii di wax nii ëllëg yàlla di leen indil poñetu àdduna rek ñu daal di bàyyi jàkk léeg-léeg nga gis benn waaye di dem jàkk di julli di woor waaye xéewal di koko rek mu daal di taxum si boo xam ne amul jàkk changé numéro portable changé oto changé lépp bal sax yenn saa yi mu am oto mais day tent vitre yi changé na soxaa xela xaas saxat ndeysaan bu leen fàtte istuwaaru saalaba saalaba julli si na fajar ñu ne asalaamualeykum mu daw mu julli si waat fajar ñu ne asalaamualeykum mu daw julli si waat fajar asalaamualeykum mu daw yonent bi ne waaw saalaba lu tax boo boo jullee pare doo def say ñaan mu ne yonent benn yére laa am su ma jullee pare moom laay daw jox sama soxna mu daal di sol pour julli waaye ñaanal nu waaye mu tamit ne ko nii baax na mu ne déedéet ñaanal ñu pour ñu am alal te ko déedéet alal fitna la mu ne ñaanal na waay dim na ko yal na la yàlla ubbil allahu akbar ñaan bi nangu na parce que ki ko ñaan saala ba këram fees na mbedd bi fees na saala ba léegi julli suba rek lay julli si dootul julli si tisbaar dootul julli takkusaan dootul julli timis dootul julli géej suba rek kër gi ak mbedd bi fees na dëkk bi fees na saala ba tox na dem na ca digg àll ba léegi àjjuma lay julli si dootul julli si suba allahu akbar saa yu sëlmalee yonent bi lay xool mbooloo mi du gis saalaba mu ne yaa way la saalaba saalaba alkuna fekk waxoon na yonent boo ma ñaanalee incha allah sama alal bu ñëwee islam dinaa financé dinaa dinaa ñu bëri loolu la ñuy wax fii cey bu ma yàlla mayee cey bu ma amoon bu leen yàlla mayee buñ nee lu waaye man ci jàkka ji sax ñii la ñuy def dugal seen loxo seen poos loxo bi naa leen moytu leen biir yi moytu leen téeméer yi moytu leen 500 yi moytu 200 yi loxo bi day yàgg toog ci biir di di buma di buma ba mu jot juróomi dërëm wala ñaar dërëm mu doog a génne joxe fekk waxoon na bu ma amee nan yàlla yërëm mbir yi léeg-léeg ñuy wax rek fekk du wax ay wax ay jëf la yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg mu natt li tamxiis pour segg saala ba fan la mucc mooy asaka wàcc yonent bi ne daf leen ngeen ne saala mu joxe asaka mu ñëw mu ne waa ji waa demal dama ñëwaat waa ji dem yeneen dëkk yi ñëwaat daa di romb mu ne waaw ah waa demal rek après dinaa xool dinaa ko indil sama bopp yonent bi ne ko seen gars yi di ñëw mu ne yaa way la saala ba saala ba alkuna ñees mu ne joxe na ñu ne joxe wut de nee na dina ko indil boppam yonent bi bu ko indee sax du ma ko jël mu toog ba mu neex ko mu buub indi yonent bi ko du ma ko jël de dellul yonent bi génn àdduna Aboubacar toog mu buub indi Aboubacar ne ko yonent bi jëlu ko woon Aboubacar du ko jël Aboubacar génn àdduna mu buub indi Ousmane Omar Omar ne ko ab yonent jëlul Aboubacar jëlul Omar du jël noonu la saala ba alko ixwat al iman wal ibtilaa li taqwim yenn saa yi yàlla dina natt pour qiima pour qiima sondage évaluer yàlla natt jullit yi pour évaluer fan lan toll mooy fi ñu toll tey ci àdduna ci yaafuus war a nekk benn nga xam ne partout dans le monde ñu ngi mbugal jullit ñi partout dëkk yu weexee ñu ñuy ñëppoon ba ñooy Afrique Centrafrique ñu ngi rey jullit yi Côte d'Ivoire Somalie soo demee dëkku arab yi daanaka sa yaram day daw boo demee yeneen dëkk yi kazalik jullit yëpp ñu ngi souffrir ñu ngi leen di natt da ngay dem ci dëkk ñu ne fii kenn du fi julli julli mbooloo xoolal ay Europe ngay dem ñu ne kenn du tabaski kuy rey xar dara ne ko rey kenn du rey xar sa kër di leen bu mu xataal kenn du fi muuru kenn du def lii kenn du def laa di fitnaal jullit yi waaye xoolal jullit yi ñoom seen bopp fitna yooyu di leen dal ak mbugal yooyu xeex yooyu ñoom lan lañ def pour génn ci dara ñoom ci seen bopp ñoom ñooy reyante seen biir borom bi tabaraka wa taala nee na inna fi zalika la aaya wa in kunna la mubtalin lii ngeen di gis ci ay musiba yu wàcc ci àdduna ay feebar ak ay jafe-jafe ki jàngoro gi natt na ngeen xam ne ay kéemtaan lañ ngeen war a dellu si seen kan wa in kunna la mubtalin man yàlla mi maa leen koy nattoo wala nabluwannakum bi sharri wal xayri fitna yàlla nee na dinaa leen nattoo lu baax dinaa leen nattoo lu bon pour ngeen dellu si allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaai wa arina albatila batilan على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله